initiative la boo xam ne ni wër na Sénégal gi wërngal këpp ñeel programme tabaski propre waa SONAGED lañ sa jublu mooy ni mbalit mi fii si Ndakaaru ak si yeneen gox yi nekk si biir réew mi lu ëpp juróomi junni ndaw ñoo wàcc si mbedd mi. am na solo nag ndax euh, bés yu mel ni korité wala tabaski dafay méngoog euh, bés yoo xam ni li nga xam ne mooy génn ci mbalit ci kër yi dafay bëri. mbalitu tabaski nag gën a particulier ndax li mën a moytu daal mu mën a indi ay xet ak ay jafe-jafe ci quartier yi moo tax dañ koy fexe gàttandiku mu nekk nag effort boo xam ne dañ koy def ci benn diir bu gàtt lu dalee tey ci ngoon ba filig suba daal bëgg nañu fexe ba dëkkuwaay yëpp daal mën a setaat moo tax aussi bàyyi nañu benn numéro téléphone boo xam ni mooy 202 123 ngir euh, gox goxaat yi nga xam ne dafa am difficulté wala suñu loxo yeggeewul foofu ñu mën ñu woo ci numéro boobu ngir ñu def correction bi ay jumtukaay yu am solo la waa SONAGED wàcce ci mbedd mi ngir rek matal bi la opération banqaasam yëpp la génne ngir rek fi jaar yoon. c'est l'occasion aussi ma sant ñi nga xam ni la ñuy tuddee les concessionnaires du nettoiement ñoom aussi dañ leen defoon li tubaab di wax astreinte ngir bésu tabaski ñu mën a bloquer seen ay oto bloquer seen ay chauffeurs pour ñu mën a liggéey pour ñu mën a maintenir le système habituel ba pare yokk ci aussi dispositif yi nga xam ni am nañ ko lu demee ni brigade de propreté brigade d'intervention rapide. ak bépp dispositif daal boo xam ne am na ci biir UCG ak aussi li ñu mobiliser ci ay moyens lourds ci petit matériel pour mën a accompagner exercice boobu. directeur général bu Sonaget fas na yéene wër communes yi nekk fi si Ndakaaru ngir rek xool ndax liggéey bi jaar na yoon lii di opération bu war a am diirub ñaari fan dugguleet nag kër gi yor mbirum mbalit mi di amal yëf yi.